mbokk internet de ziar naa leen ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñëwaat ak ci seen plateau bu am solo bi rek di nettali koor comme ni ñu koy defee saa su nekk rek indi leen a nettali bu doy waar saa su ne ñu ciy ànd ak mon frère oustaz plus abu Aboubacry an ay ci abu maa ngi lay ziar bu baax a baax ah plus nettalikat. ah kon baax na ay ci mi ngi noonu. maa ngi lay ziar bu baax a baax jabaat sañaan nuyu coréen xale bu mën xale bu bëri histoire bi nga xam ne moom du may kenn jàmm. waaw moom moom wax dëgg fa yàlla moom ñii ñëw bu ñu faloo ci réew mi mm. nañu rek la ñu bëri histoire ñi ci réew mi ndax kenn mënul am jàmm ndax moom nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi nuyu nekk ci biir réew mi ci biti réew Adja Fatou Seye delloo la kàddu mi ngi noonu Aboubacry Anne li nga wax ci Koroyeen moom bu studio bi bu fi nekkee rek studio bi day riir riir a riir non Koroyeen fàtte kii moom dañ kaa war a jël rek delloo ko Kore ayca abu ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax. ah, ah <laughs> kon baax na non kii Kore la jëm Kore ayca <laughs> mi ngi noonu ayca dañuy ñëw rek tey ci suñu nettali du jour. Mm-hmm. Aboubacry Anne li xale bu jigéen la boo xam ne nee na moom dafay laajte loo xam ne wax dëgg yàlla pendant des années mi ngi nii nee na nag jàngu na ba sonn gisul jëkkër ndaxte nee na rang bi dafa seere loolu la ma wax mais nee na ci biir nag li muy jànku amagul jëkkër nee na parfois weeru koor bu jubsee day mbaraan pour lu mu mbaraan loolu lay préparer ay ndogom nee na des fois sax bu demee ba ca diggu koor gi li nga xamante ne moo di xaalisam jeex day woo ku ci nekk rek ci faram yi muy mbaraan daal lay ñaan xaalis pour mu koy eh, defee ay ndogoom léegi nag nee na moom mu bëggoon a xam rek loolu lan la ci diine wax ndax pendant des années mi ngi koy def nee na nag bi mu gisee émission nettali koor mu ne na ci poser question bu am solo boobu ndax nag xaalisu mbaraan moom lay ndogoo abu <laughs> Aboubacry Anne <laughs> jërëjëf dama tiit kat wallaay kooku maa du ko xam ka ah di ah, accord <laughs> am comme neen kat xam naa ne moom sañ na loolu ndax fitam may na ko lépp <laughs> waaye dafa am mbaraan am ar arnak hmm. Sénégal léegi jigéen ñi mbaatu ne léegi dañuy ar arnaqué loolu ar la ah. ndax tey jii mbaraan peut-être mën nga yem ci kenn hmm. nga am ku mel ni Aboubacar Anne hmm. loo bëgg wax ko mu defal la ko waaye bu dee da ngay am far dem ci Aboubacar Anne dem ci Papa dem ci Fall Damel dem ci eh, Jabel dem ci Mor Seck mais bu yàggee kon. déet mais mais mais bu yàggee ah ah en tout cas de am na ñu ci joxe daal ñoom moom tey jii lu ñu am dañ koy séddoo xale yi ah déet du ma tudd tur nag ndax bëgguma nag ko ma laaj règlement de compte mais li am solo moo di gis nga jigéen bu la yàlla bindee dafa am benn valeur bu nekk ci yow muy dignité jigéen ñu bëree bëri sànni nañ ko joxe li ko waral nag déet non mais déet damay wax jigéen ñu bëri bari laa wax jamono bi Sénégal surtout surtout génération 2000 gi sàmm nañ joxe ko ci àll ba boo jëlee cent jigéen quatre yëpp sàmm nañ joxe ko li ko waral moo di gis nga nit bu yàlla bu yàlla defee jigéen da war a am fulla am jom am personnalité ci sa bopp yaakaar naa am na benn nettali boo wax fan yële passé muy jigéen goo xam jëkkëram dafa tukki waaye taxul ni que mu takk sëram am am dignité am kooku tey jii maanaam même bu mbaraanoon ba am jëkkër mais kooku du joxe ba am mais la tey nag góoru léegi rokki mi rokkaat la de waaw dañ lay filmé ba pare la ah, ah mais am na ñu fi ndogoo si seen coro am na ñu fi ndogoo seen coro kon yéen yem parce su fekkee ñoom dañuy mbaraan pour ndogoo yéen tamit ngeen di dem di ndogoo ji ci ñoom te wàcc seen yi kon nag kenn mënul xas kenn. gis nga xoolee la plupart ñi fi mbaraan fatsuñaan ñu bëree bëri ay célibataire lañ waaye ñi ñuy mbaraan itam la plupart tamit ay célibataire lañ kon ñaar ñi amul ñoo mën a ànd. Eh, loolu d'accordu ma nag parce que góor ñi fi am jabar ñoo fi dàkk ndogoo seen kër mooy loolu. lan mooy mooy loolu. Ah, moo ñoo fi dàkk dem ndogoo ji seen kër geli pour daal ñëw ci sujet bi daal moo di nit ki boo wooree nga xam da ngay jaamu yàlla bu lekk lu xaraam lekk lu xaraam moo di coréen mi ñëw ci ab bakar an kat tey dara doxul mu wóor que ni maanaam moom li muy wax ab bakar an dara dara dëgg bu a ab bakar an joxee mu dem ci keneen encore naa ngi ko faal c'est sama maam moo feebar daa am lu ma koy jëndal dem ci keneen sama yaay suukar jabetam bi dajale loolu lépp nag fas yéene koo dérete def ko ndogu mais yow boo ndogu ñàkk fay da nga ndogu te gis nga li yàlla wax naan am na ñoom te ne seen biir safara moo ci nekk li ñu naan waa aklu amwaali na bi xayri tibi nafsin yenn saa nit lekk alal nit fekk fekk fekk neexul borom te gis nga góor ñi nañu bàyyi ñàkk fayda yenn saa jigéen téela ci point nag ba nga xam te ne ñàkk fayda lu nga jox ko mais boo nekkee góor boo joxee joxal sa yaay. loolu du ñàkk fayda. non yéen nii moom ñàkk fayda la koo bëgg di ko jox takk ko. waaye bu sëfaa nga jënd tubéy nga jënd diw nga jënd jakartaa yaay joxe jàng yaay fay bu takk waree jot mu dem la bàyyi dem ci keneen loolu yëfu dof la kon donc yow mi jigéen itam boo wooree sa biir moo ci cee def safara yàlla nee na am gis nga ëllëg ci biir sama règle dama compte ak ñoom moo di ma laaj leen seen seen alal bi fu fuñ ko jëlee bëri na jigéen ñoom te ne ñu ngi toog di jaan yàlla naan allahuma te nag nee nga amul jëkkër ba tey mais ak moo ko topp moo amagul jëkkër. jigéen ñu bari bari ñu ngi naan yàlla jëkkër yàlla ne leen mayuma la ndax dàq nga sa jëkkër. <laughs> abu waxati na kon tey ngaa wax kalaasu koréen gi ñu bàyyi dàq bi. laa wax bëri na jigéen ñoom day naan yàlla jëkkër yàlla naan la mayuma la. Ah, bu ñu gisul ku leen arrangé dañ ciy dugg. dañuy mbaraan ba ba mbaraan seen jëkkër ba dàq seen jëkkër. genre kana gii dañuy gis ku leen bëgg. Ah. xamoo sa bopp de yow. waaye kon kaa ñu essayé deux jours nga ñaan ko connexion li muy def bàyyi la. deux jours passe jakarta mu bàyyi la gis nga nit boo ko bëggee bul ko ñaan bul ko jàmbat am na góor ñoom te nag dañoo muus dañ lay xool testé la xool quoi coréen bi moom daf mun na ñaan de mais coréen chaque jour ñaan connexion passe ah ordonnance kii su ma ko takkee daf may sonal daf lay jël mètre la à côté Abakayane loolu a góori Sénégal ngeen baal ma non non taxawal taxawal may ma poñe boobu may ma poñe boobu mm. da ngeen a bëgg lu yomb yéen da ngeen di bëgg labat nit ngeen ne du ngeen ko jël en charge nit soo ko bëggee nga am ci moom ay intation yu baax loo koy testé kii seet su trouve yow kii da nga koo bëgg ah maanaam eh, boo ko waree teral teral ko bul fa nekk di calculer yaa ngi dégg mais yow tamit bu fekkee da ngaa ñëw ci moom naan da ngay seerse moom it mu naan dangeen ngeen di seerse après naxante lay jur yéen da ngeen a bëgg lu yomb nag mu toll nii ni sénégalais yi di falee président de la république yéen góoru célibataire itam falee leen ko seen soxna jigéen ñi tamit falee noonu seeni i jëkkër. xool seen programme xool kat ku jigéen kii su ma ko takkee ba xam dina ma sonal ci gis nga d'accord nit ki bu nekkee sa jabar danga koy defal mais waxuñu fenn kat far day defal geram loolu amul fenn man de su ma amee dara man di ko jox kenn man sama yaay laa koy jox balaa ma jox sama gel oustaz waxaat je nag à haute su ma amoon dix mille francs ma xam ni dix mille la sama yaay laa koy jox mu ne la moo gën ma ko jox sama gel da nga bii gel boo jox xaalis. guddi mu bloqué la boo ko mu ne non c'est que dama doon wuy téléphone waaye daa am benn kàmm doo liggéenti fan la lay jaaree kon donc yow mi jigéen waneel benn maanaam dignité ba ëllëg ci biir ku lay takk takkee la ci ngor waaye jigéen ñu bëree bëri dàq nañ seen jëkkër waaw ñaan rek papa sama yaay daa feebar papa dama war dem dakaar sama carte d'identité sama passeport fexe maanaam ba lay nañ dem sax maanaam banaan seen faru maam moo feebar moo tax dañoo bëgg xaalis ñoom jigéen ñi kon nañu moytu kon boo wooree ragalal yàlla nga delloo ci ci la yàlla may mais nag xamal làgg mu sàmman nga am ndey am sa baay yaa ngi dégg te nag du doom bu jigéen baayam moo ko yor ak ak yaayam sa yaay moo la war a yor du yow boo liggéeyul toogal sa kër même boo amee soom bi nga lekk ko moo gën nag ngay ñàkk fay te nag góor ñi lu ñu la jox fayeeku ko gis nga góor ñi bu la joxee midi vingt une heures nga ñëw ñëw ñu fayeeku ko ah déet noonu la mel kay mbir mi facture dong la kon ki naan daa di mbaraan ah am na koor de waaye àq mu ngi ci biiram te nag nit kuy lekk àq bu ñaanee yàlla yàlla du ko nangu ajaay ajaay fàtt si ñaan yàlla abu daal waxati na mi ngi noonu en tout daal li si mënti nekk seen bëgg lu yomb gi nag dafa yomb bëgg di labat jigéen ba pare ne doo ko amal benn njëriñ da ngay rëyal grand bu rek comme sa classe gi day yombu torop nag abu wax dëgg yàlla loolu moom jigéen ñi ñoo bañ affaire yi daal li ngay wax la jikko la ñuy natt mais nag defal ni nga ko waxee bu ko waa ji nangoo aussi mu bu ko bëggee defal kenn du ko tere mu defal ko parce que moom moo ko téye moom daal ku ci takk waaw mi Sénégal di président noonu la mel léegi xoolal critère jigéen bi ngay takk ku fi takk jëkkër it xoolal jëkkër bi ngay takk ndax góor ñi dañoo sikk loolu moom maa ko wax jigéen ñi ay ca mi ngi noonu ab Bakri Anne macha allah affaire yi am na solo bëgg jël lépp xëpp ko jigéen ñi du ko nangu maa toogal jigéen ñi ay ca mi ngi noonu abu dañ lay bàyyi rek nga daal di joxe naafila du jour ak ñaata rakk la ñuy julli ñaata sëlmal ak ñaata saar la ñuy tali comme ni ko gars yi di waxee rek faate ak ub saar naafee tey bi ñeent ñeent rakk la rakka bu nekk benn fatiha waxal benn inna anzalnaa juróom-ñaari yoon kana soto moom xam naa ni mënul inna anzalnaa bu ñu paree sax mu tari ko bu dee ah mën ko waaw benn fatiha inna juróom-ñaari yoon xul wallaaha juróom yoon léegi nag boo demee ba ci maanaam euh, sëlmal bu mujj yi fa ngay taaya nga def laa xawla wala quwata illa billah soixante-dix fois nga ñaan ci yàlla nee loolu boo ko defee yàlla bépp maanaam bàkkaar boo xam te defoon nga ko dina la ko jéggal dégg maanaam xam na xam nga nag bantuwaat maanaam mooy ñu nekk direct mais comme que maanaam boo xoolee mën nga ko rectifier encore arrière avancé ndax youtube boo avancé day ñëw ndax xam nga koor gi souvent nag faañ faañ ay kàddu man damaa sonn un peu benn fatiha la waxal benn inna anzalnaahu tari ko <laughs> inna <laughs> waa tari boo ko taree junnoon ji léegi nga def ni kin bi defoon xaa wala nga borom nafaasaati ki doon tari kii <laughs> saati de la doon wax nafaasaati king baaba kon naafee tey bi allah ñeenti ràkka ñaari sëlmal benn fatiha inna anzalnaahu juróom-ñaari yoon euh, qul huwallaahu ahad juróom-ñaari yoon boo demee ba à la ci sëlmal bu mujj bi nga def laa hawla wala quwwata illa billah nee boo ko defee incha allah yàlla jéggal da say bàkkaar ajaafaat si ngaan ayca mi ngi noonu Aboubacry Anne naafila du jour bi yaakaar naa ne leer na am na solo kon nag Aboubacry Anne jox na leen naafila du jour abu tey ñaata lañ am ci koor gi. tey ah waa am onze waaye bu dee ñun deuxième groupe moom te tey am fukki fan. kon mhm. li ma la waxoon ci suñu njëlbeen émission mooy eh, raxma mooy yërmande bi tey la jeex waaw kon suba lañ jëm ci njéggal bi kon daal dinañ gën a jaamu yàlla rek ñii mbaraan bàyyi mbaraan ñi jaamu yàlla jaamu yàlla. noonu bu ko defee ñu mun ñoo jéggal ginnaaw bi yërmande bi jàllee abu tey dañ lay bàyyi rek nga eggale euh, troisième partie sang-sang yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam démb gis nañu ni ñu ci duggee euh, man nag nee naa la kéwél gi kéwél gi la ah. gi macha allah ni ko yenent bi remplacé ba mu dem nàmpal njabootam am na solo lool abu euh, Aboubacry Anne moo tax ma ne kenn du Seydina Mouhamed xam nga démb ne woon naa la kéwél barki démb néewoon naa la mbaam tey ci fas laa jëm ak Seydina Muhammad xam nga kana nag xam naa nit léegi mu avayé dara ndax moom daa bëgg yonent bi moom moom soo waxee rek dafay daal di daanu foofu rek laa jaare sax nuyu sama benn yaay ku bëgg yonent bi lool di Adja Oumou Sarr bokk ci daayira sopp da baax mook suñu yaay Adja ko nga ñoom ñëpp ziar leen ñoom tam faatu ndax ñoom ñoom ñooy suñu yaay xam nga nag tabaarakallaahu ñun dañu am si suñu yaay bopp ci ëttu yonent bi mm-hmm. kon temps umu saari ziar la bu baax a baax nuyu ñu waa yëpp mm-hmm. ak ñoom Maodo ñëpp waaye ziar itam ki nga xamante ni mooy tànku ma baax mm-hmm. sopp da baax ak ñoom tam faatu tamit sama directrice Adja Astu Astu madame Samb nekk ci ISEC moom nag moom moo ñu formé daanaka déet non xam nga ñooñu dañoo bëgg yonent bi te nag boo wax yonent bi faa faa nga ñëw ci xam nga tey di yow bu ñu waxee nettali da nga naan faatu sa ngaan ko bëgg nettali la ah, waaw ñoom tamit yonent bi lañ bëgg ah, ah bëgg nga ko ah, maa ngi woon démb ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ni la wax naa kéwal fu mu jaar ak yonent bi mbaam fu mu jaar ak yonent bi waaye tey fas laay wax xam nga yonent bi dafa am benn guddi mu toog ku ñu naan ummu xaani daal di koy invité reer ne dama laa invité invitation bu neex boo ñëwee ma bernde la yow Seydina Muhammad bi bi demee ci invitation boobee Jibril fekk ko fa ne ko Mouhamad sa borom kat tey jii guddi tey gii moo la invité invitation bu dàkk invitation Umu Haani bi sa boroom ca kaw asamaan la la invité man ak yow ñooy ànd nabi ànd ak jibril waaye xam nga yàlla pour won maanaam nit ki saa yoo wàccee sa bopp ñu yëkkati la mu ne jibril demal ci biir aljanna am na benn fas bu ñu naan al al ndax jibril dafa ñëw fas yëpp jug ndax fas yi xamoon nañu kat yonent bi tey dafay dem ka kaw asamaan fas yu naar yu góor yu punkal yeeg ñëpp taxaw di jaay naan tey moom maa fi gën a punkal man maa yóbbu Seydina Muhammad mais alburaax moom toogee fa mu toog modeste jibril ne alburaax kat mii laa yeb ndax moom mii ni mu toogee nii xëccuwul dara nabi ànd ak jibril ci alburaax kaw asamaan nabi àgg premier asamaan yonent yàlla adama téeru ko mu saafoonteeg moom ne ko man sax waxoon naa ki sama programme xam xam xam comme président yi bu ñu defee ba seen programme jeex naan kat Sénégal fii la war a dem encore yonent yàlla maanaam aadama wax na bi ak programme ne ko man kat tooñ naa yàlla waaye jéggalu woon naa ko waxoon naa yeneen yonent dañ ñëw nabi waxtaan ak aadama ba pare ba muy dem mu tàggu moom jiite ko ñaari rakka yonent yàlla issa nga xamante ni moo waxoon yaati min baadi ismu Ahmad man maa ngi dem waaye su may ñëwaat dina ko tudd Ahmad na bi waxtaan ak moom saafonteeg moom mu dem troisième asamaan mu fekk fa yonent yàlla Yusuf te nag voyage yëpp nag alburaax moo ko yóbbu muy fas wa yonent yàlla Yusuf moom ku ne xamoon na taaram moom a dàq foofu dàq koréen mi dàq la yow mi mu ne ko man kat taar bu ma am yow yaa ko waral yow Seydina Muhammad ñuy dem quatrième asamaan ñu fekk fa yonent yàlla Idris cinquième asamaan ñu fekk fa yonent yàlla Haaruna cinquième asamaan ñu fekk fa yonent yàlla Moussa ba septième asamaan mu fekk fa yonent yàlla Ibrahim asamaan bu ne nabi fekk na fa ab ab nger ngir saafoonteeg moom pour nga digg ma mu ngi mel tey jii président Macky Sall bu waroon ñëw Thiès gouverneur day taxaw monsieur le maire taxaw préfet taxaw yeneen chef de service yëpp taxaw bu ñëwee nuyu gouverneur nuyu maanaam monsieur le maire nuyu ñëpp loolu moo am foofu. yeneen yëpp a taxaw def seen ra ndax xam nañ tey ki gën ñëpp moom moo war a ñëw moom Seydina Muhammad mais voyage boobu liñ ciy jàngale moo di yàlla daf koo faral ndax yàlla ne na ko yaa yaa ñëpp way naka la ala ndax man maal est-ce que xam nga ni tey jii yow mi fàttu boo toogee rek ñu wax Seydina Muhammad la nga ci teg yàlla day ne malaaka Fatou Sangane mi liggéey Thiès Info di def émission nettali dama bëgg yéen ñëpp ngeen bëggal ma ko ndax daa bëgg Seydina Muhammad mu ne léegi pare gu ma maanaam malaaka yi du wax naa leen ko xaaral mu dem ci kaw suuf ne yéen nit ñëpp rek dama bëgg ngeen bëggal ma Fatou mii ndax daa bëgg Seydina Muhammad parewul foofu de mu ne garab yéen ñi nga xamante ni daal yii ñëpp ay ay garab ngeen bëgg leen ma faat suñaan ndax daa bëgg Seydina Muhammad yàlla pareegul de mm-hmm. yàlla waxtaan ak maanaam mala yi xar yéeg bëy yéeg bukk yéeg ñëpp mu ne yéen ñëpp jox naa ay ordre ngeen bëggal ma faat suñaan ndax daa bëgg pareegul mu ne pépp su fi nekk ci àdduna bi yépp nag mm-hmm. bëgg leen a faat suñaan ndax daa bëgg Seydina Muhammad ku bëgg yoon bi rek noonu ngay mel ndax yàlla moo ko sopp yàlla moo ne yàlla moo ko ne ko man man maa la bëggal sama bopp xam nga yenn saa yi tey jii nga dugg ci kër jur ne kat man sama préféré sama doom mooy par exemple caat mi wala taaw mi ndax man moom dañoo am complicité yàllaa ko yonent bi ne ko man maa la bëggal sama bopp loo def baal naa la moo tax yàlla waxoon ko inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara mu ne yow Seydina kon kooku boo ko bëggee kon yàlla tànn yonenteem gis nga ñi naan ñun président maanaam ñun candidat diw lañ tànn moo mooñ sab mm-hmm. yàlla tànn Seydina Muhammad ne man kii sama candidat mm-hmm. man moom laa fal sama président. Mm-hmm. moo tax àddina kenn ku ne bàyyi respectel ko choix wam kenn ku ne fa mu téye respectel ko ko bu ko defee jàmm ne ñooyu. xam nga Seydina Ibrahim dafa am tey jii xarit sa gis nga Fatou lu ma nekk nekk nekk sa xarit. yenn saay yi mën naa la toog nga mere mais nit boo ko soppee lu mu def da lay neex même bu ñëwoon saaga la daan yow man sama soppee nga baal naa la ndax man awma ci yow maanaam maanaam euh, sago pour nga dégg ma ret am na ñoom ne tey maam seen soppe lu leen def baal nañ ko ko jibril àgg ak seydina muhammad ba septième asamaan nag ne nabi man fii laa mën a yem ndax leer gi su ma avancé une seconde mooy leer gi duma ko atteindre mu mu ko foofu nabi ñëw fa nga xamante ni maanaam fa la war a commencé comme nga dégg ma pale ca maanaam tapis ba nabi simmi ay dàllam xaarul sax ba ngi ne ko simmi say dàll waaye kii yee yaru Seydina Muhammad yaru te xam nga yonentu yàlla Moussa bi mu àggee ca benn maanaam bërëb yàlla def ko nekk fa àlla naa leeka innaka bil waadil muqaddas wa simmil say dàll ndax yaa ngi bis bërëb boo xamante ni bërëb bu tedd la Seydina Muhammad nabi simmi commencé attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi mu nuyoo yàlla nekko ko asalaamu aleyka ayyuhan nabiyyu yàlla na ci nekk ci yow yow mi nga xamante ni yow laa yónni wa wa barakatuhu ña fa nekkoon ñëpp daal di nuyoo asalaamu aleyna wa ala ibadillahi saalihina maanaam nuyu ne daal lépp lu bind yàlla ci yàlla def jàmm waaye ñu ngi seede amul kenn ku ñu jàmm waaye yàlla kii yaa ko yónni sa soppe la xam nga tey jii par exemple tey bu la président boo woon yéen ñaar da ngeen am benn face mu toog ci fauteuil nga toog fii waaye yàlla ak yonent bi ñu leen def jàkkaarloog moom alquran nee na suma danaa fata dalla ñuy waxtaan ci projet yu bëree bëri xam nga tey jii la Macky Sall invité woon da la wax face face mais yow nettali noo koy defee nga ne ko yàlla man kat nettali nii laa koy defee waaye waaye waaw waaw waaw waaw moom moom waaw Macky Sall woo la waaw Macky bu la Macky woon ne la façon net nettali noo koy defee danga ko ne yàlla danga ko ne Macky kat man nettali bi nii laa koy defee yenn sax fee laa waaye awma oto bëgg naa oto mu ne la jox naa oto jëlal mu ne xoolal léegi sax see xoolal naa wutal ay caméra yoo xam te ni 4K la foo tourné caméra jàkkaarloo yow ngir ret maanaam bëgg ne nettali jëm kanam yàlla ne Seydina na sa xel man maa tànn waaye lenn rek laa lay jox mooy julli waaye balaa julli googu na xam ni sa sa xeet ñoom ñëpp dañ dem àjjana. yàlla ne yonent bi sa xeet ñoom ñëpp àjjana lañ jëm mu ne ko waaye ay une condition julli yi su ma la ko joxee nañ ko def ni ni ma ko waxee ñu waxtaan ci ay point yu bari yàlla xool Seydina na xam ne kii daal tabaarakallaahu doyalul ci moom. mu ciwaat ko fa encore wax ak moom mbir yu bëree bëri ne yàlla koo xamante ne dafa def bàkkaar nan la war a maanaam euh, tuubee wala wala noo koy jégalee mu ne ko yëgal ni sa xeet daal ku ci mës a wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kooku kooku tabarakallahu yàpp yaramam dina dina xaraam safara mais bi nabi ñëwaatee jugee kaw asamaan bi muy ñëwaat am ku mu dajeel yonent yàlla Moussa ndax boobu Moussa nabi am na li mu amul nabi nee na ko man ci yàlla laa jóge mu ne ko lu mu la jox mu ne ko jox na ma juróom fukki julli cinquante julli xam nga ñu am la woon Moussa ne ko nabi lii daa bëri man sama xeet ñaar dong la ñu amoon te ci yàlla mu wàññil la ko mais Moussa li mu bëggoon moo di nabi ne ko léegi kon kaañu ànd xam nga instant yi am na ko fi nekk candidat léegi candidat boobu léegi am na ko nekk ci wetam maanaam léegi kooku daa bëgg léegi maanaam bu kooku nekkee président mu jëyee ko nii di ànd ak moom di xàccandoo léegi Moussa nag li mu bëggoon moo di yonent bi na ne ko kaa ñu ànd ci yàlla waaye yàlla kenn kenn rek moo ko mës a gis muy Seydina Muhammad xataa Jibril sax yàlla def ko yo ne ko Jibril sàngam waaye xamul melokaan yàlla nu mel. da ko yónni rek moom Seydina Muhammad rek moo mën a gis yàlla Moussa di ànd ak nabi ne ko dellul bu delloo ñëwaatee yàlla wàññi fukk ñu dem ba mu des cinq Moussa ànd ak bu mat sëkk bëgg a xool kanay yàlla. ne ko waaye yàlla nag jox jox na ma juróom bàyyi ma yem ci mais bi Seydina Muhammad nag ñëwaatee ca Màkka fajar googe ne gaa yi kat démb demoon naa ci yàlla gaa yi ne ko yow nag da ngaa dof nag xam nga nag yow yaa ngi doon naan maanaam <laughs> maanaam yàlla la ñu ne ko yow da ngaa dof bi Seydina Muhammad ñu ne ko nag da dof ndax fa nga wax fa nga dem boo jilee oto daanaka dinga def au moins ay fani fan nga ne dem nga fu ñëwaat. waaye kenn rek moo ko gëm muy Seydina Aboubacar bi nabi ñëwaatee la xew luñ ko wax ñu fa ba suba encore ndax yonent bi du jeex daa sakkan aja Fatou bu dee amoo question rek ñu tàggatoo ba suba incha allah. tàggatoo rek ba suba incha allah nga daal di a uh, wax ba mu demee lam fa jëlee lam fa wax comme nee nga ñëpp dañ koo weddi ba kenn rek moo ko gëm muy Seydina abu moom moom dong moo ko gëm yeneen saxaaba yi boobu ànd nañu. xam nga maanaam. nit ñi dañoo commencé di maanaam sikki sàkk naan kii li mu def est-ce que noonu ne bu ma waxoon sax maanaam dem na fudul foofu man dinaa ko gëm ndax loolu mooy engagement total nit ki gis nga boo xasee gëm ko bul am ci moom sikki sàkk kon nag yonent bi ngoog dem na ci yàlla ñëwaat am na lu mu àndaale lu am solo suba incha allahu taala ñu àndi jërë bu soobee yàlla incha allahu taala Aïcha mi ngi noonu Aboubacry Anne ñu lay daal di jaajëfal bu baax a baax dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo mbokk internet yi. Eh, man nag menaces ma jot sànq ba léegi ci ci ginnaaw écran tamit faaw ma ciy wax ndeysaan ndax mënuma supporter ngay ngay def émission ñu lay xoqatal di la bunduxatal loolu nag président bi ñëw na ci wax ndax mënuma concevoir nit ki nekk ci ginnaaw caméra di lancer ay pic waaye amul problème. yàlla na yàlla may jëkkër xam naa ne loolu rek nga yàlla fan yi waaye yàlla baax na di sant yàlla bu baax a baax nuyu ñu ma nuyu woon sànq ñëpp astu Sam madam waaw as astu madame Sam mu nekk nekk ca di sama directrice tabaarakallahu waaw kanam moom mu ngi mel ni si selbe ndoom instant bi <laughs> xam nga selbe moom <laughs> day toog di faral kulaay def yi nga xamante ni mooy loolu <laughs> ah, ah man de am na sëriñ bi ma jox résultat waaye waaye sañu ma koo wax. xam naa daal li ma sëñ bi wax su ma ko waxee xam naa Sénégal yu daal nañu ma mere waaye garaawul yàlla baax na kon suba incha allahu taala ay ca mi ngi noonu Aboubacry an bu baax a baax di jaajëfala mbokki internet Thiès info ñiy saxoo lii di nettali koor di leen joxaat dig daje suba incha allah ci nettali koor laa coréenne moo nekkoon na ci caméra bi la jël nu witt nag topp ji rek du ñu def ay grimace waa internet yi yéen tamit du ngeen ci wax lii xaq la de lii xàkke la nekk ci ginnaaw caméra bi ñu def ay grimace du ñu mën a sax xam lu ñuy wax kii daal du fa mën a tooñ ay ca mi ngi noonu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ba suba incha allah d'ici là portez-vous bien